révision pour deux jours pour que téye ko sa kër <laughs> da ngay dee de lépp a yàqu waaw deux jours rek laa la pour nga dugal ko foofu ndax courant bu coupé wala frigo tey nga dee tàngaay bi yàq na lépp loolu mënul nekk waaw gis nga ñun amuñu marché bu gouvernement mu su fi defar marché boo xam ne dina am mm, situation yu adéquate yu war a mun a tax tey jii nit mun a dem jëndi saa mu buñu mu bañ a nekk ci insa insalubrité mënul nekk ok waaw léegi docteur Raoult boobu ñuy wax noonu moom. Euh, mon Marseille le nekk ah président université pour Marseille ex en provence euh, peut-être ñu nekk Marseille war nañ mais le gars mon euh, il est né au Sénégal mon Dakar Dakar le judo en 1952. les, pour moi wax leen kan gagné na prix yu bëri gagné le grand prix institut national de la santé et de la recherche médicale pour France mon gagné ok def officier officier de la légion d'honneur en France Faux nous na commande commandeur de l'ordre national du mérite Nous na France Nous trois distinctions yo du ku du français ñoko am Raoul dafa jour pratiquement dafa gis organisation mondiale de la de santé lu ñuy wax ci affaire Covid bi bolé wuñ ci chloroquine ñuy après dinañ wax lan chloroquine ko ok mais moom mu yeewu mu ne mais comment chloroquine bi wuñ ko ci ci liste bi parce que dafa am ay liste prioritaire pour mun traiter Covid bi en attendant ñu trouver euh, euh, nu mu tuddati ñuy trouver hmm, ñuy trouver remède bi je sais pas. moom mu def ay tests sur 120 contaminés à Marseille mu gis ne deux ñoo ci amone létalité bu saf saf saf saf bu metti won deux yu amone létalité bobu ils étaient âgés à plus de 87 ans ok nous ñu des pas, n'y a pas pa ñaari pa la ñu ans nous avons. donc euh, mon mu suggéré ne léegi dafa bëgg pour ñu jéem a xool ndax mun le chloroquine bi parce que chloroquine bi mooy malaria mooy fait paludisme comme vous pouvez l'appeler ok Les bons mots waxee Olivier Véran ci boppam nga xam ne le ministre de la santé en France ministre de la santé en France moo que yow te. Euh, mon éco tes recherches sont encourageantes mon ko wax moo ko toog ci télé bi wax ko ok Mon nee les résultats yu kii def yu Raoult def sont prometteurs mon moo wax le 19 mars le 19 mars ok le 19 mars euh, nu laboratoire euh, américain bu ñu woowee Discovery ñoom boolewuñu woon tamit ñoom it ñoom it boolewuñu chloroquine c'est une liste prioritaire prioritaire dañ ko sey dugal discovery ok waaw gis nañ tamit le 21 nu mu tuddati euh, gis nañ le 21 le 19 mars surtout le 19 mars Donald Trump wax na si wax na ci affaire chloroquine bi boo leen demee si internet bi di ngeen ko gis léegi moom nee na chloroquine bi waaw résultat préliminaire yi mu def sont satisfaisants moom moo ko Donald Trump moo ko wax. waaw yéen ñun chloroquine bi nit yi di coow fii yëpp mooy garabu niim bi nekk Sénégal tegu foofu nga xam ne mooy waaj a amatu fa. ok gara garabu niim bi mu ngi waaj a garabu niim bi ci eh, dafa fees ak chloroquine ah. am na ñoo xam ne war nañ la ko mën a wax ñun bu ñu doon nekk xel dañ ko daan baxal jox ñu tuuti nga naan am na ñoo xam ne sax feebar moo leen gënaloon ñu naan garab boobu tellement dafa weexoon ok benn jour tamit maa ngi def benn recherche gis ne Idriss Aberkane Idriss Aberkane ñuy nekk ci YouTube yu bari xam nañ ko waaw moom dafa am benn société boo xam ne moo ngi ko tuddee Airin international moom la ko tuddee moom mu ngi Sénégal moom nee na day plan day planté ay arbre day fen waaw moom mu ngi def ci recherche bi muy def yëpp moo ngi ko def ci chloroquine bi moo ngi ko def ci garabu niim bi moo ko def ci nebedaay bi te pratiquement moom day dem chaque fois mu ngi Fatick euh, foofu ñuy def cérémonie xooy bi foofu xam nga foofu tamit am na benn laboratoire fa boo xam ne pour euh, médecine traditionel bex yooyu ñu xam Fatick war nañ ko mën a xam ok mu def loolu tamit ok euh, ñun Italie fii moom nivaquine amu fi nivaquine amu fi fii ku fi ku fi malaria da ngay dee fii ndax ñoom xamuñu ko donc mais ñun ñi nekk Sénégal xam ne dañoo malaria feebar paludisme bay bëgg a dee ñun xam nañ luy loolu n'est-ce pas c'est pas pare donc yéen tey jii dëkk boo xam ne instant yi euh, Italie fii ñoom ñoo ngi joxe comme chiffre instant yi tey ñoo ngi joxe chiffre cinq mille te yegg nañ cinq mille deux cent morts mais affaire yi daa daa am lu ci xew ndax Donald Trump 21 mars tey ñu ngi ci 23 barki démb la defoon benn euh, déclaration wax ci chloroquine bi ne dafa bëgg ñu essayer ko parce que chloroquine bi. Euh, résultats préliminaires yu mu joxe sont très trop satisfaisants loolu la wax mais italien instant yi dañoo commencé tidde gouvernement bi démb def na benn décret mais dafa wàccaat ci suuf ndànk ne instant yi les conditions sont en train d'être stable loolu gouvernement bi wax premier ministre c'est pas une déclaration pour moi, rek leur ville c'est la euh, deuxième ville à part Lombardie parce Lombardie Milan Il y stop stop on est en zone rouge depuis le début <laughs> depuis le début mais fu que deuxième ville bi nga Venise Veneto

léegi commencé dañu arrêté dañuy bàyyi ay deux personnes deux personnes deux personnes parce que dañoo créé benn psychose si nitu italien te italien en général dañoo ignorant wax deug yalla en général dañoo ignorant parce que ñom waaw ils sont arrogants ils sont ignorants ñoom dañoo foog ne xam lépp te xamuñu dara ok léegi léegi gouvernement bi dafa planqué lépp nakete yo gouvernement bi nak ci union européenne instant yi ñom seen toxi duuni yi ñu doon def yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp coronavirus bi mo leen nar a coronavirus bi mooy tax mooy mooy tax ñu wu ok pratiquement adesso l'Union européenne moo décidé ne léegi euh, dootul dootul laaj benn taxe dëkk yi nga xam ne dañoo am cas de cas de contaminé yu bëri yu exagéré Italie duufle seen i chiffres maa ngi dégg bi barki démb ñoo ñoo ngi recevoir benn subvention vingt 25 millions d'euros vingt 25 25 vingt cinq milliards astafirullah vingt cinq milliards d'euros vingt milliards d'euros

waaw ah, ñun tey jii par exemple amoon nga possibilité euh, fii boo yoree yoroo xaalis nga jël sa carte dem carte gab xam nga euh, retiré xaalis léegi italien dañoo xëy banque yi xëy léegi ni deux cent euros kërëb kërëb deux cent cinquante euro sa banque ngay mën a dem léegi da ngay laajte tamit tontu la ngay soog a mën a ñëw retiré benn chiffre waaw ah, parce que coronavirus bi par exemple léegi billets yi il faut ñu wàññi ko ndax euh, day day wóorul ak pandémie weex yooyu ok ba léegi loolu la mais italien musul salte ñu xam italien yi dëgg xam ne ni italien yi ci set rek nañu mës a dëgg dañu civilisé italien yi waaw loolu moom bokk ñoo français yi ci kii boobu moo tax disoo leen fu leen fekk dañuy tooñ français yi ok léegi beneen affaire bi problème problème bi mooy fu mu ne nii ñoom démb looloo tax sûrement ñu def déclaration bi parce que dañ doon xool évolution weex yooyu am na tamit ay vidéo yuy circulé ci internet Bergamo ay yeneen dëkk yi nga xam ñu ngi ay char de combat yu dox ci dëkk bi dañuy fen char de combat yi char de combat wu américain yi la américains yi ñoo commencé assasier Europe ok bo leen duggee si site internet US Army di ngeen gis lu ma leen wax ñoo ngi ko bind foofu en anglais américain yi ñoo ngi déployé plus de 200 000 troupes di leen préparer te américains yi nu ñu amee ay troupes yu mel ni ay Sénégal ak yooyu noonu lañ ko bëree Europe fii ñoo ngi Lituanie ñoo ngi France ñoo ngi Italie waaw ah, Libye ba ko américain yi doon attaqué Italie dañ jaar ok italiens yi ce sont yoo xam ne majeur pour pour pour les États-Unis yooyu yëpp ñoo ngi si ay kii di déployé ñu naan loolu ay cercueil la ay nit dañuy fen sont des chiffres ay trucs la ok waaw euh, beneen affaire bi fii ma dëkk nii man mii gisuma fi benn xale bu fi feeral fii ma dëkk nii waaw bu ko amee keneen ku fi dëkk tamit gis ko na ko wax amul amul benn xale bu fi feebar amul benn jeune bu fi feebar amul ko am 40 ans bu fi feebar ñu si feebar ñëpp ñëpp ñëpp ñu si feebar ñëpp ñu si feebar ñëpp dañoo am ay complications yoo xam ne yeneen feebar moo leen kii mais du coronavirus bi ci boppam moo tax ñu am ko. léegi nag da ngay gis benn journaliste boo xam ne day daan taxaw def télécaméra am buntu hôpital taxaw médecin bu njëkk a génn mu ñëw ci médecin bi ne ko madame damaa bëgg nga wax ma ñaata nit ñoo fi dee en attendant. on se parmi les parler Certo. Non disturbarmi, no, non capiscono quello che dico. Um, mi hai interrotto, non so più cosa stavo dicendo. léegi ñoom dañuy taxaw jël télécaméra yi taxaw ci biir hôpital bi benn docteur bu génne ñu ne ko docteur dama ñaata nit ñaata nit moo fi dee docteur bi wax yow tey ji par exemple nit mun na deewe leneen sax ñu ne loolu la mais tamit nañu waxante dëgg yow malaria bi nga xam ne paludisme bu ñu doon jàpp Sénégal une semaine la doon durer sept jours nañ la daan piqûre pour nga mun a wér xaw ma yéen a ngi koy fàttali ko xaw balaa ni vaccin di am mais bu jàppee fii yi da leen di rey <laughs> loolu koy jarut a bu jàppee maire fi da leen di xamuñu ko ko am seen corps préparé pour loolu xam nga donc euh, ñoom instant yi ñoom instant yi ñoom ils ont créé psychose boo xam ne fii fu mu ne nii doy na waar instant yi moom lu am fii moom mënu la ko wax léegi déjà les gens sont confinés chez eux mënuñu génn police ngi dax di wër di wër ñuy takk seeni rajo waaw di wax léegi dañuy interdire ku génn sa commune fi nga dëkk yow tey jii mënoo génn fii dem feneen léegi supermarché bu euh, mënoo dem beneen supermarché bu nekkul sa commune ok mu ngi commune nag bu ma ko déggee mu ngi mel ni koñ

donc sûrement genre février bu ñëwé da leen di ray du len fi bàyyi waaw légui Sénégal da ngay dégg nit yi di wax confinement confinement waaw nan affaire yi nit yi dañuy nekk di fanatique man je suis pas trop religieuse euh, ci affaire yooyu mais tamit nañ waxante dëgg <laughs> Touba Touba xam nañ li ñu def de waaw ju dem nañ julli jàpp seen ñaambur boolewuñ seen wax ju bëri nit yi fi nekk di mbel di mbel di mbel di mbel mais tey jii mon ami loolu réglé wul situation bi yéen ñi doon leen confiné leen seen kër confiné leen confiné leen yéen ñi sax daa am ci li ngeen yaakaar rek da ngeen di confiné ba xaar ndax garab dina ñëw donc yéen tamit da am ci li ngeen yaakaar kooku tamit di dem di julli di ñaan ci yàlla tamit daa am lu mu yaakaar yéen a yem ci affaire boobu waaw confinement du résoudre du résoudre dara ñun Sénégal situation yi ñu nekkee mënuñu permetre ñuy tëju suñu kër mënul nekk amuñu disposition yi amuñu mënuñu ko Euh, tamit ay raxas loxo yooyu loolu dafa ne dafa war a nekk c'est simple loolu nit ku nekk daf ko war a def chaque jour waaw même kuy julli sax di raxas la kii mu ngi koy def tout le temps donc je sais pas lan mooy problème bi affaire yooyu ah solution bi mooy ñun ba léegi ñun xamuñu lan moo war a mën a faj coronavirus waaye xam am nañ loo xam ne war na ko mën a traiter ba mu wér mooy suñu garab yooyu ay garab yu niim yeex yooyu yëpp. Hmm. légui donc pourquoi léegi ñun kenn duñu wax ci affaire yooyu lan moo tax kenn duñ ci wax kenn duñu wax ci affaire chloroquine kenn duñ ci wax France ñoo ngi ni am nañ problème Farmasi banque pharmacie centrale buy jo buy fournir hôpital chloroquine amutu fa ku weddi li may wax tamit na ci internet bi dina ko gisal sa bopp ok ah mais légui sama gars yi man je sais pas xaw ma ci mais nañu bàyyi di nekk fii di sonal nit yi naan Macky Sall nañu xaar mu jël ay disposition mais ku nekk si boppam jël disposition boppam waaw utal say niim yu bëri waaw di si sangoox di ci naanax loo ci xalaat def ko waaw parce que solution bi ci ñun lay jóge jógee du jóge ci tubaab yi waaw mu jóge si tubaab yi ndax tubaab yi ñoom ils sont pas préparés waaw ils te confinement bi ngay dégg nii <laughs> grand grand Cheikh Ndiaye li nga wax dëgg la de rime avec moyen de tey jii xool imagine benn góorgóorlu bu dëkk Grand Médine wala parcelle banlieue bi <laughs> góorgóorlu loo xam ne day yeew taal ay kii uti lu mu lekk kooku tey jii boo ko tëjee si këram di lekk yow gouvernement baa ngi ni amuñu xaalis ñu taxe leen électricité loo xam ne kenn mënu ko yow da nga foog mun na subventionné kër yi pour ñu pour ñu toog seen kër loolu mënul nekk waaw affaire bi nag xam nga. situation bi dafa préoccupante ici moo tax may may def live bi nii parce situation bi instant yi moom dafa jéggi dayo lu muy jéggi jéggi dayo yëpp euh, du coronavirus bi moo tax mu jéggi dayo psychose bu ñu def ci coronavirus bi moo tax mu jéggi dayo ok waaw parce que chiffre yu ñu Italie jox fii wax dëgg yàlla daa am benn virologue italien benn virologue italien moom moo nekk euh, bëgguma wax turam ndax Facebook léegi dañoo def benn affaire bu ñu tuddee Euh, nu mu tuddee di sax euh, nu mu dañoo def benn kii bu tudd fast checking xaw ma ñu ko tuddee maanaam am na parole yoo xam ne boo ko waxee rek boo ko waxee rek boo ko waxee rek ñoom dañ lay jàpp comme fake news affaire yooyu léegi démb daa am benn décret fii daa am benn décret bu génn fii décret bi léegi mooy fake news léegi dañ lay porte plainte da ngay am ay sanction sanction yi bu doy dañ lay tëj ci kaso bi ñoom il sont dañoo préparer lépp italien yi xam nga ñoom ay sàcc moom dañuy mun di dox ci sàcc dañoo préparé lépp par exemple tey nit taxaw wax fake news virologue lu wax dafa leer dafa ne man chiffres yi wax preuves tangibles ou bien des noms yu gouvernement ko lan nga wax ordre des virologues ak yooyu woo lu wax le gars moo raw professeur Raoult affaire recherche virologue euh, virologue bi ak euh, microbe non non non, non non, on l'a radié ndax mom lu mu dafa leer dafa pour moi, selon moi, 1% UD, cent yu du coronavirus mo len ray que gars fa dire seen ñuy yow en trois semaines mu génn la 5400 chiffres yo xamné man que ngi dëkk ci rouge bo xamné mënuma dox ba gis am coronavirus damay xëy rek ñu ne ma waaw secrétaire bu doon liggéey ci commune bi moom moo am coronavirus nga laajte tur bi ñu ne la ay eh, ñun xamuñu ko nga jékki-jékki doo doo comprendre ñoom seen chiffres yi xamu fu muy jógee nekkete yoo ñoom si suuf union européenne union européenne vingt cinq milliards vingt cinq milliards vingt cinq milliards d'euros pour affaire coronavirus bi non mais gars yi moytu leen seen confinement yi ngeen bëgg a imposer nit yi Sénégal munul dox Nous ne pas pas possible du tout da ngeen avez di top final Macky Sall responsabilité mbébé mbébé Macky responsabilité 11h bu yeewoo di soog a précaution précaution coronavirus bi sibiru la Sénégal di sibiru di sibiru di sibiru Vous xam nga ni ngay est garabu bu Vous avez nga denc sa kër waaw boo rombee paa yi sax jox leen ko ndax paa yi ñoo gën a vulnérable ak affaire yooyu waaw. léegi Ablaye le moom camp de Ablaye laa moom moom ma naan euh, Raoult euh, Raoult moo nekk xoolal <laughs> Raoult sawaay yi Sénégal la kiiwee nu mu tuddati moo nekkoon euh, directeur hmm, directeur nu mu tuddati waaye l' institut de recherche bu nekk parc bu nekk Anne Maris. moom moo directeur moo nekkoon tam directeur des recherches à l'université Cheikh Anta Diop nekk de 2008 jusqu'à 2017 2008 jusqu'à 2017 pratiquement <laughs> Founini, mu ne 9 ans lu ko 2008 jusqu'à 2017 Mon mu ngi donc xam na waaw lu mu wax affaire chloroquine bi du waxu caaxaan du waxu ay fen de waaw ndax ñoom seen boppam ñoo

non italien ignorant ignorant bu ñu xam ne tele boo xam ne kenn tàkkutul waaw man ñemeetuma taal sama télé boo taaloon lii dañuy def ay live 24 heures sur 24 naan la coronavirus tey kii dee na fi ay fen yi neen yaa chiffre ñuy jox ah, teguñu ko fen gisoo ko fen man loolu moom métti parce que man tamit wax dëgg yàlla am nga sekkee ni ñoom dañoo bëgg xaalis waaw ah, toog ci kër gi bañ a liggéey moom ah loolu moom wax dëgg yàlla ñi moom ah, yàlla na ma yàlla attef maa ngi wax dégg France ñu naan léegi France boo leen toogee seen kër dañ leen fay Italie c'est pas pareil ñoom dañuy sàcc te duñ dimbali ñii ñoom ay dooméeraam lañ waaw parce que France dañuy dégg naa dañuy jël charge seen salaire yi xaw ma ndax loolu dëgg la wala du dëgg mais nous en Italie fii moom boo boo liggéeyul doo fayeeku de boo liggéeyul doo fayeeku waaw donc la situation est trop critique si waaw man gars yi ñoo ngi wax ne day dem ba été man gëm naa ne lii balaa gannaaw suba gars yi dinañ commencer fay affaire yi.

di nga dépense bu mot cent euros par semaine su bëggee danga nga bëgg di lekk di def loo neex ok ok cent euros man diggante ba ñu ma confiné léegi mënu la. ñaata ñaata laa dépensé wala sama jabar ci affaire ndugg yéen ngeen bëgg Sénégal ñu confiné leen foofu ma wax ngeen ne wàcce leen armée bi ay ba leen wàcce armée bi yow nit yoo xam ne guddi gi nañuy ñëw tëdd mën a am fu ñu nelaw bàyyi leen si ngeen def. beaucoup nañu xool solution yi ndax tay jii nit yi buñu confiner won seen kër et après on va faire quoi on va faire quoi boo leen confiné seen kër loo leen def nañu toog xaar yàlla benn euh, médicament génn pour ñu mëna faju en attendant qu'est-ce qu'ils vont faire lolou du solution bi lolou du solution bi euh, lan la Assane Assane Yaat saa chloroquine bi. du dox lobby la ñu bëgg ñu créer garab yi yow dootoo ji sax chloroquine nga naan ma lu ma xamul moo tax ma ne la nga gaaw wuti sa garabu niim <laughs> azar chloroquine amul amatul te dégg nga lu seen waa jooju wax français bi lu mu wax démb dégg nga ko waaw nee na chloroquine bi bu nekkoon ci banque centrale bu doon bu doon euh, fournir hôpital yi jeex na te gars yi xamuñu fu mu ne chloroquine bi ngeen xamul fu ne Italie fii chloroquine bi amu fi waaw ñoo fenn am nañu ko sàcc de te kenn xamul kan la loolu problème bu mag a mag la léegi gars yi boo ñu bëggee trouver solution mooy dañuy jéem a xool lan moom nañu mën a def ba éradiquer coronavirus bi ndax coronavirus bi naa leen ko xamal de billaay wallaay taala du len lu dul psychose bu mu indi moo gën a ëpp sax feebaram rayu nit yu bëri de daa am nit yoo xam ne dañoo feebaram ba pare coronavirus bi doggali leen. waaye coronavirus nga xey rek yow dara jotu la yow nga nekk en bonne santé mu ñëw jël la rek ray la loolu c'est pas possible c'est pas possible waaw chinois yi nag mun na am tamit ñoom xamuñu woon genre feebar yi mais Italie fii ñoo Ita Italie ñoo tuddee paludisme malaria. boo dégg malaria rek xamal ne italien leen ko tuddee 1917 da leen rey da leen jeexal waaw taxul ñu am jom waaw lu ma lay wax nii boo demee ci archive yi di nga fekk italiens yi coronavirus bi jeexal na leen bu yàgg sax xamu luñ ko mën a tuddee malaria bi mais ñoom dañoo nekk di business ci feebar bi business boo xam ne sawaay kenn xam nu mu toll italiens yi ñoo ngi business business boo xam ne ñoo ngi lëmbee dëkk bi ñoo ngi lëmbee dëkk bi loolu c'est grave léegi damay gis ay nit yoo xam ne ñuy toog ci Facebook bi naan waaw yow lu nekk Allemagne nekk France da ngeen ko mën a def kii da ngeen ko mën a def Sénégal yéen xalaat leen rek gars yi dëkk ci banlieue bu sori bi ñooñu ñu ñuy def ñooñu boo leen naroon téye kër goo xam ne di nga dem fekk fa plus de 10 personnes waaw mètre carré yi motul sax 100 100 mètre carré tu vas faire quoi amoo amoo frigo amoo foo denc sa bagage nan ngay def confinement yombul sa waaye confinement dafa ànd ak moyen confinement du affaire u caaxaan waaw fii lan moo tax mu ànd ak moyen mooy les gens ici euh, taux de ñëpp dañuy liggéey tubaab bi fii ñoom tubaab bi ñoom dañuy liggéey waaw bu ñu liggéeyul tamit am nañu ay possibilité gouvernement bi tamit am nu mu leen aidé waaw dinañ jox carte pour ñu dem nduggi waaye lekk daal du leen manqué moom dinañ lekk ba dee moom lekk moom leneen moo lay sonal waaye du doon lekk. <laughs> Assane euh, doy na waar kay waaw mais yow yaa ngi France yaa ngi France demal nga xool kuy professeur Raoult. professeur Raoult fu ne nii dafa dafa culbuté affaire dafa culbuté deal bi dafa toj deal bi lii moom moo naroon nekk arnaque du siècle coronavirus bii moo naroon nekk arnaque du siècle je waa ji caaxaanul de waa ji professeur Raoult bii ko déggul tamit war nga xam de ay ay ay collègue kenn euh, naw nañ ko de waaw ndax gagné na grand prix gagné na grand prix institut national de la santé gagné na ko N'est na officier officier de la légion d'honneur que commandant de l'ordre national du mérite waaw ay président université de Marseille tamit mom mom wax deug yalla quoi quoi il est contre aussi le confinement mom est d'accord aussi tamit d'accord confinement confinement solution léegi nit yi nag euh, bu ñuy joxe seen avis nañ dem jëli joxe seen avis ci nit yi nga xam ne xam nañ ci dara waaw ndax ñii ay ñoom raawul te ñii ñoom luñ ci xam bëri na lool lool lool par rapport ak nit yu wax. <coughs> mais chiffres yi ñu italiens yi jox fii instant yi italiens yi boo leen ko laajoon mënuñu la ko fournir parce que déjà lan moo njëkk a si ci yi ma wax leen ko mooy euh, premier patient bu ñu ne euh, moo indi coronavirus si dëkk bi dañ ne dafa demoon euh, Chine en vacances ok bañ ne dafa demoon Chine en vacances euh, ba am mu toog fi ay trois semaines quelque part mu dem Milan ba Milan foofu dafa demoon benn diine ak benn xaritam ci la ko wàllee mais diggante trois semaine yooyu moom wàllul kenn kon waa jooju mu gis benn yoon rek la wàll waa italiens yi fa nañ ñu ko jaarale def ko benn dëkk boo xam ne dëkk boobu bokk na ci dëkk yu gën a riche gars yi toog foofu tëju seen kër riche yi ñoom bu ñu tëjoo lu muy wàññi nit yi dinañ lekk dinañ naan seen newu ci Donc, c'est pas pareil. Hmm. En plus, Mina à Dakar, AIBD, ils ont un vol direct. Ils ont un vol direct. par jour, ils ont 5, 10, je sais pas. Mais maintenant, 5. Ils ont mal pensé à dire Dakar, ils ont trop, trop, trop. Donc, modu modu bobu ñu né moko jël duggal ko Touba xé tout tamit ay nar la ndax ñom bañuy bañuy fermer frontière yagul té italien ñu ngi doon